Kolossaar ñett kon nag ndegam dekkeendoo ngeen ak kirist wut leen yëf ya nekk ca kaw fa kirist toog ca ndejeeru yàlla fonk leen yëf ya ca kaw te ngeen baña a faale yi ci suuf ndaxte dee ngeen te seen dund boole nañu ko ak kirist denc ca yàlla te bis bu kirist mi seen dund feeñee yéen itam dingeen feeñ ak moom ci biir ndam kon nag li nekk ci yéen te bokk ci mbiri àddina jëbbaleen ko dee yu deme ni doxaanu yàqute sobe xemam bëgg-bëggu yu bon ak bëgge maanaam bokkaale yàlla yooyu xëcc merum yàlla yéen itam noonu ngeen daan doxale bu jëkk ba ngeen daan dunde noonu waaye léegi bàyyi leen yii yépp mer xadar kiñaan ak di génn ci seen gémmiñ sos ak wax ju ñaaw bàyyi leen di fen seeni moroom ndaxte summi ngeen jikko ju bon di ngeen judduwaale moom ak ay jëfam te sol ngeen dund gu bees gi yàlla sàkk te di ko yeesal ba mu mel ni moom ngir ngeen man koo xam bu wér ci dund gu bees googu amul yawut ak kudul yawut ku xaraf walla ku xaraful jaam walla gor ku jàngul ni yi ak ku yeewul waaye kiristey lépp te dëkk ci ñépp kon nag ndegam yàlla tànn na leen sellal leen sopp soloo leen boog yërmande laabiir woyof lewet ak muñ muñalante leen di baalante su amee kuy tawat moroomam baalante leen ni leen borom bi baale ci kaw loolu lépp am leen mbëggeel gi jokkaale lépp ba mu mat na jàmm ji kirist di joxe noot seen xol ndaxte yàlla woo na leen ci loolu mel ni ay cër yu bokk benn yaram te gërëmleen yàlla na kàddu kirist dëkk ci yéen bay baawaan ngeen di jàngalante ak artonte ci seen biir ak xel mu mat sëkk di wooye ak a gërëm yàlla ak seen xol bépp ay taalifi sabuur ay kañ yàlla ak ay cant yu tukke ci xelum yàlla te lu ngeen mëna def muy ci wax mbaa ci jëf wéer leen ko ci turu borom bi yeesu jaare ci moom gërëm yàlla baay bi jigéen ñi na ku nekk nangul jëkkëram ndaxte looloo jëkk ci ñi bokk ci borom bi góor ñi na ku nekk bëgg jabaram te muñal ko déggal leen seeni waajur ci lépp ndaxte looloo rafet ci ñi bokk ci borom bi baay yi bu leen bunduxatal seeni doom ngir bañ a jeexal seen xol jaam yi nangu leen ci lépp seeni sang yi ci àddina bu leen ko def rekk ci seen kanam di sàkku ngërëm waaye na nekk lu dëggu ci yéen ndax seen ragal borom bi lu ngeen mën a def na ci seen xol tàlli ngeen def ko ngir borom bi te du ngir nit xam ni borom bi dina fay seeni jëf mu di cër bi mu leen dencal kirist mooy boroom bi ngeen di liggéeyal waaye ku def lu bon borom bi dina la delloo sa jëf te du gënale